اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي السلام عليكم ورحمة الله بكي جنا بني سنتي على لجلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيرني ديلن زيار لين بالحق نان بروم بولين جيغل ديل سي وات سي سونو درو الى ملك الملوك في نظم قطب الوجود العارف بالله سيد احمد عرب الشرنوبي mooy téere bi jàngale li nga xam ne moo aju ci wàllu principe bi tasawuf ak lan mooy taalube ak lan mooy seriñ ak lan mooy gidd ki ñu war a topp nañ ko war a toppeeg yan mandarga la war a yor yan capacité la war a am ak yooyu yëpp loolu la ñuy téere bi di farañ fàcc ak tasawuf fan la jële nit ak fan la ko jëme muy ay abiyaat nag di ay bayit nag wax way la dañ ko way way woo xam ne day ànd ak sharha ñi ngi jàngoon ci suñu dars bu mujj bi wa udrija fi tawjihi fi عيون الغيب كنز الذخيرة وأدرجت الأكوان في غيب ذاته كإدراج ميت في قميص وعمة تيني بغجل بن بيت لن يجل تي مي وتخبر بالأشياء قلب وقوعها من اللوح يقراها بعين البصيرة باتاي موغي تي كادر سيرين بوبو كيغا خامتاني جد لاي دون تي تصوف دون كو خامتاني كو نيو توپ لا موي اورينتي نيت دي لن يوب تي سن بروم دي خام سيني حاجو دي خام سيني فيبر دي خام سيني جافا جافا دي خام سيني سين سين لي ني مان اك لي ني تيلي واو كوكو باتاي نيغي فوفو mu ne seriñ bi dafay doon koo xam ne wa yuxbiru day xibaare maanaam day joxe information bil ashiyaa ci mbir yëpp nag qabla wuquuha avant mbir ma di xew leen lu ci ne balaa muy xew dana ko révélé am na fi ci mag ñi ñoo xamante ni bari na loo xam ne buy xew nañ ko wax ñu junj wala ñu junj ko wala ñu ne nañ def nangam ak nangam yàlla musal ñu ci loola gis nga qabla wuquucihaa njëkk loola di xew min allawxi nga ne yaqraaha mu ngi koy jànge min allawxi ci lawxil maxfuud foofu lay yërndu fa lay yërndoo information yi waaye nag du doon bët wi ñi xam nag comme bët wi nga xam ni moom lañuy moom la ñu xam ci bët waaye nag bi aynil basirati ci bëtu gis-gisu basira bëtu basira lay doon maanaam mooy gis-gis boo xam ne gis-gisu xol la nit yàlla buy xoole ci lawxil maxfuud du bët yi ñu xam ni ndax bët yi gisul li gis dëgg ci doomu aadama du bët xol la انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نون لك القران اندي بون غومبا بون كو واخي موي كو خولم مور كو كو غيساتول سلما خان موي كو بتام ديم واي موغي غيس وا لولو داي ام موتاخ كو ملني شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه بيم ديمي باي بتام مورو ñi ko daan dawalal seede nañu ne bu ñu daan ànd ak moom boo xamul foo foo jëm boo yéexee mu gide la ne la jàddal fii ni ngay def ba ngay def ba yegg ca place ba nga jëm du jamono ju ne nag waaye daan na ko jëfandikoo waaw loolu ci xeetu nit yàlla yi nga xam ni yàlla jagleel na leen ko moo tax mu ne ay wa min chani hada al aarif li nga xamante ni mooy mbiru ki li nga xam ne mooy ki xamee ci yàlla alkaamil di ko mat fil maarifati ci xam-xamu maarifa mooy annahu yuxbiru bil ashyaai al maalumati fi batini al gaybi qabla wuquiha moom dañ koy day joxe information yoo xam ne yu mu yu mu am la yu wér ji ci li nga xamante ne mooy lu nëbb na nag lu nëbb avant muy xew information yi mu ngi ko amee ci batinul gaybi batinul gaybi nag mooy biiru gaybu fa la koy jëlee ci information yi nga xam ne ay kumpa lay doon du ñëpp la ko yàlla di xamal foofu la koy jëlee daal di koy jàllale avant muy xew gis nga nag fi aalami almushahada baada an yaqraaha min allawxi almaxfuz bi ayni basira mu ngi koy jëlee ci mondug mushahada waaye ginnaaw ba nga xamante ni jàng na ko ci alwa boobu ñuy wax lawxi almaxfuz waaw gis nga kon loolu mooy lawhil mahfuz mooy alluwa bi nga xamante ni fa la yàlla bindee lépp lu nga xamante ni mooy lii dogal yi war a gaar ci àdduna bi war a dal nit ñeeg war a xew-xew yi war a am ak ya ca aju loolu nag ci gaay bi nag am na ci ñoo xam ne di leen ko yéendul ko xool di wax moo tax mu ne wa yaqra'uha fil bayti mu ne baatu baatu yaqra'uha yaqraaha bi ñëw ci bayt bi bim naa yaqraaha bi aynil basirati أي يقرأها ويويتخ من يقرأها بدون الهمزة ويموتخ من يقرأها من يقرأها لكنما وضح من وقد اطلع الله بعض خواصه على ما في اللوح المحفوظ الجامع لكل شيء لقوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين برمي سبحانه وتعالى wa يندل بولم نيغا خمنتني أي nga xamante ci wàllu maarifa te mu jël leen taf leen ci boppam dina leen yir yéerndul lawxil mahfuz li nga xam ni moo fay daje ñoom ñuy jël ñuy jël information yi léeg-léeg ñu di ko jàllale yi nga xamante ne ay balaa yu war a xew la ñu ne ah def congrès kat ne balaa nangam kat war naa ñëw asalan coronavirus ah moom kat bu ñëwee faaw mu faat ay nit gàtt gàtt dina faat nu toll ak cinq millions de personnes ñu ne ah waaye kat bu ñu defee tawassul ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñaan daal di def ay saraxa ki bu waroon doon cinq millions yàlla mën na koo def trois deux ba trois millions loolu mooy intervention yi bu ko defee ñu ñëw daal di def nañ def ñaan nañ def nangam nangam nañ def saraxa kada loolu day am duñu wax nag lay xew moo tax mu ne alquran na wala xabatin fi zulmaati al ard wala rat wala yabisin fi illa fi kitabi mubin amul benn pepp ونك تيلن دمك سوفي ولا توي توي ولا لغواو لب لغي خوشي أدونا يب يالا دخن نغوشي لوحي المحفوظ بوري ميجي سورة الأنعام موكي مومو جانجل لولا متعموحني وكان سيدي جاكير الكردي يقول ما أخذت العهد قط على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من أولادي كي كوني وخو جاكير الكردي mu ne musuma fasanteek kóllëre benn taalube maanaam ci ay taalubeem lu ne dama gis turam ci lawxil mahfuz mu wóor ma ne kii ci samay njaboot lay bokk ma mën a fasanteeg moom kóllëre maanaam taalibe yi aji ci moom ñëpp dafa gis seen tur ca lawxil mahfuz yàlla xamal ne ko ne kii ci njabootam lay bokk mu boole mu mu fasanteeg moom kóllëre mooy la Cheikh Abdul Abdul Qadir Jeylaani doon wax boobu ne taalibe ba ba bu ñu amee xëj-xëj ci seen diggante mu ne ko bile bi gayne gi di bëgg a lekk sa yaay ba mu lay ëmb boobu man maa la sobe woon te boobu moom waaja juddoogul loolu yàlla defal na ko nitu yàlla yi moo tax moom mu wax wax jii ne mosuma fasanteeg benn kollëre ci taalibe lu dul ne gis naa dama gis turam fa ñu yàlla boole ci lawxil mahfuz ma daal di fasanteeg moom kóllëre kon sëriñ dafay xam taalibeem bala muy ñëw dëggantaan bala muy ñëw war na xam ni diw mi balaa muy ñëw laax di wax moom muy jug di yegsi ci moom de balaa muy ñëw war na ko xam loolu dafa war a dafa war a bokk ci ci ay maanaam ci capacité am la bokk jarul nag mu di ko ko wax mën naa ñëw ma naan ko nangam lii laa bëgg fekk mën nañ mu bi mu ñëwee xam na li mu bëgg yëpp yëpp yëpp yëpp waaye dina xam ban yoon lay jaaranteeg moom ba mën ko dimbali <clears throat> boo demañ ko sayid ibrahim dasuqi mu ne ida kamila ida al aarifu fi maqaami al arfaani awrasahu allahu ilman bila ba mat ci wàllu maqaama ci xame ci yàlla yàlla daf koy daf koy Euh, donnuloo xam-xam boo xamante ni du am intermédiaire do ko jële ci nit am na ci nit yàlla yoo xam ne dañuy am xam-xam yoo xam ne duñ ko jëlee ci nit hmm, am na ñoo xam ne am na benn nit yàlla kilifa goo xam ne mu ngi ci Mauritanie gi mas na def xalwa boo xam ne fukk at ak juróom-ñaar la dix-sept ans moo xam nu mu ko duggee na xëy na mu doon ko doon doon ko dugg sa guddi wala mu doon ko dugg bëccëg wu ne waaye fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne tëju na ko euh, jàngul Seydina Isa ci boppam moo ko moo ko dicté bind ci la ma ne bind xam-xam yi mu jàng yëpp wax nañ li ci ëpp ci xalwa boobu ci la ko jële jarul ñu tudd turam pour wax exemple joxe exemple rek ñu xam ni lii ay réalité la ko ko xamul nag mënu ko gëm waaw ku ko dundulit mënu ko xam nit doomu aadama yàlla moo leen bindee noonu ci wuute كان كوتشي نكرا اكس آه، نيفو بيني ديمي لوليت فوق نيو كومبراندر كو موتاخ يالا داف كو خم خم بو خامني دوكو جيلي سي نيت با واخذ العلوم المكتوبه في الواح المعاني ففهم رموزها وعرف كنوزها وفك طلسماتها وعلم اسمها اسمها ورسمها واطلاه الله تعالى على علوم المودعه في النقد motax mom serigne bi yàlla daf koy joxe xam-xam ci walu maarifa mom xam-xam yo xamni ci lawhil mahfuz am na yoo xam fa la koy jele ci lawhil mahfuz nga xamni du am intermédiaire wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam jox ko direct jaarul ci kenn ci xam-xam yi nga xamante xam-xam yu fàddu la bari na salatu ala nabi yi ngay deg yi xew yu bare bare bare bare yi ci mën naa ne yëpp sax wala yi ci ëpp yonent bi moo koy di digle ay nitu yàlla ñu bin ñu ñu ñu tàmbali ko di ko zikkar wala nga jële ko ci lawxil mahfud commencé di ko di ko jëfandikoo wala mu ñëwee ci beneen anam rek boo xam ni du am wasita digganteeg yonent bi sallallahu alayhi direct lay doon du am wala mu liire mu jàngee ko ca lawxil mahfud loolu day am noonu tamit lay amee ay xam-xam yoo xam ni ay ay ay ishaara lay doon maanaam ay junj ay ramz lay doon ay junj yoo xam ne ci lawxil mahfuz ba ko xoolee yàlla da koy ilham koy ilhamal maanaam ci loo xam ni da koy xool rek comprendre ko xam ni lii lii la bu ko defee mu daal di xam magasin xam-xam yi xam yi nga xam ne moom lañ ci tënk ci ay talsam mu xam ko mooy talsamaat yi ngay gis ci turu yàlla yi gis baatu latif ñu jël ko daal di koy tëgg tëgg ko façon yi tëgg loolu nit mënu ko nga xool ñu ne lay boo xoolee mu ngi jàpp nangam seize mille six cent quarante et nga daal di jël benn tour tour bi ba ko xoolee mu daal di tolloog seize mille six cent quarante et un ci nañ koy waññee ci tënkin wa ci buñ ko feccee wenn wu ci nekk lan mooy ndey yafal la jógee istixraaj ba loolu du yëfi nit xel nanguwul loola loolu ilham lay doon boo xamante ni ci ilaahi lay doon waaw bari na ci mooy ci tur yàlla ngay gis ci talsamaati rek gis nga bu ko defee wa fakk talsamaatuha mu daal di fecci talsam yi talsam mooy tur yàlla boo xam dañ ko tënk mathalan nga ne cent vingt quatre mille salaatul fatih cent vingt quatre mille salaatul fatih ñu ne la am na tur boo xam ne boo ko jàngee benn yoon moo taxawee cent vingt quatre mille salaatul fatih wala nga ne soixante dix mille euh, kaamil yoo xam ne day ànd ak xatmu kaamilul quran ñu ne la am na tur yàlla wax ne boo ko jàngee benn yoon mu taxawee soixante dix mille kaamil yoo xam ne day ànd ak xatmul loolu am na ci tur yàlla yi kooku nag ay talsamaat lay doon tënk yoo xam ne yàlla moo ko ilham eh, eh, gaayam yi nit yàlla yi ñoom ñi di ko jëfandikoo yam bu ko defee yàlla daal di koy yënqewal mboolem xam-xam yi yi nga xamante ni moom la koy dénk léegi nag bu defee nag moom wala la xaf xawful inkaari la nataqa bi bima yubhirul uqula budul budul woon ragal ku ko weddi nee kon mu tudd loo xamante ni xel yëpp buñ ko déggee dañuy dañuy tëb nopp bu ko dégg da ngay taf sa gémmiñ dootoo ko ŋaan waaw wa defee suma qaala kadalika lil aarifina itlaau ala ma huwa maktubun ala awraq alshajara walma walhawa li ci noonu wane nit yàlla yi aarif billahi dinañuy dañuy xam li nga xam ne moom la yàlla dëxañ ci xobu garab yi xobu garab boo gis rëdd rëdd yooyu ñuy gis ñu ko jàppee ay ay ay ay rëdd rëdd waaye wu ci nekk wax la dañ koy fecc picc bi sab la muy sab wax la liir buy jooy la muy jooy wax la mbaam muy sëf la muy la muy ñaax wax la xaj buy mbaw la muy mbaw wax la ginaar guy guy sab noonu bu la sëñ Hadi Touré waxoon sëñ Maodo si bi mu jàngee Égypte ba ñëw Eh, baayam ne ko na ngay dem nga seeti sëñ Hadi seen sëriñ la moo dem ziyaare ji ko waxtaan jékki-jékki eh, sëñ Hadi ne ko Maodo de jàng ba ba ba wàññeeku ba ñibbisi mu ne ko waaw mu ne ko ndax mën nga ma wax li picc yi di sab ne ko déedéet waaye loolu nag tolluwaay la mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy fecc wax ji ku mel ne Chérif Yunus radiallahu anhu bu ba bangeer nga xam ne xarit la woon ci Seydil Hadj Malick radiallahu anhu te musuñu gisante ci bët Serif Yunus joxoon na benn doomam Seydil Hadj malik mu daan ko jàngal bi mu demee ba jamono mu feebar dal di dem Casamance dem faju ji mu fajoo ba weer toog fa aw diir boo xam ne wàññeekuwul Cherif Yunus toog ci jotaay Cherif Yunus ku doyoon waar la bopp ba bopp bi dikk bopp bi ku ko gisaan dangay de dee jinne sax bu ko gisaan faatu loolu yàlla defaloon na ko mu toog ci jotaay di waxtaan ak taalibe yi seen xalaqaat yooyu jekki-jekki benn picc dal di ñëw taxaw daal di ne ciib ciib ciib daal di daw mu ne ana diw ñu rek mu ne ko lañ Malick nee na nga ñibbisi picc mi yow lay waxal moom moo dégg la picc bay wax waaye ñuy toog moom duñ ko dégg loolu nag duy karama lu leen yàlla di jagleel la te buñ koy génn sax duñ ko tey nag mhm. noonu la demee ci circonstances yi lay amee rek moo tax ñoom dañuy xam li yàlla rëdd ci garab yi wal ma ndox ndox buy daw ak ni muy ak geste ya muy def ak la ca nekk la ci ne cay trace yëpp wal hawa ak ngelaw li bu dee bu dee bu dee rëj jëm chimal wala mu jël janub wala mu jëm charq mu jëm garb maanaam jëm est wala ouest wala nord wala sud yëpp dañuy xam wan façon ngelaw la ak ngelaw luy rey la wala ngelaw cooroor la wala ngelaw loo xamante ni balaa la yëpp dañ koy xam am na benn mag nee na ma bi corona bi di ñëw damay dox timis nee na di dox jëm sama kër nee na jékki-jékki ma dal di dégg benn ngelaw lu ne fër nee na ñu ne ma Bachir maytul Bachir la tudd ñu ne ma ñu ne ma Bachir maytul balaa la buy wàcc nee na ma am na am na xaatif boo xam ne ma maytul balaa la buy wàcc nee na ma daal di gaawantu rek dugg ci biir kër gi ci semaine boobu ci la ñu annoncé na feebar bi déclenché wu na gis nga niki noonu bar li na xam moo ne ci jéeri ji àll yeeg rab yeeg yëpp buñ ci xool xam woon façon la wal baxar ak géej gi la ca ne ci géej ci jën ak ci xeej ak ya ca aju wama huwa maktubun ala safahati qubbati xaymati sama li nga xamante ni moom la ñuy bind ci asamaan si qubba bi boo xoolee asamaan si da nga gis jékki-gis ay trace jékki-jékki sax am nit ñi luñ ci jàngat léeg am ni ñi gis dara léeg-léeg nga xool gis mel ni dajeeg benn tur yàlla yooyu yëpp ñoom buñ ko xoolee dañ la koy firil dañuy wax li lii la bidew bele bidew nangam la bidew be bidew nangam la bu fenke nangam tey de am na benn nitu yàlla bu zaman bu bu fatu bidew nangam gisatumako ñoo ñom dañ koy xam wa ma fi al insi wal jinn mimma yaqau lahum fi dunya wal akhirati li nek ci do ma aadama buñ ko xole xam ko seen beut day bënn mir bu ñu jàkkaarloo yow xam yow bakkar bi nga def wala ndax yaangi ngi jàmm yàlla wala ndax nit ku baax nga wala da nga ñëw pour ray si leen wala yow tooke nga ci àdduna bi wala yow yaay defar àdduna bi dañ koy xam moo tax ci façon taalibe yi ñuy nekkal kenn ku ci nekk ak ni ñuy jëflante am na koo xam ne dafa war a taxaw àdduna bi ëllëg toog ci chaise qurbaaniya dañu xam ne ñuy jëflanteeg moom du bokk ak yi nga xamante ne ab Bachir Fall la boo xam ne moom bu jugee fii moom day dem nekk leneen loo xamante ni bokkul ak ñi nga xamante ni ñooy gàddu coono yi nga xamante ni moo nekk ci diggante asamaan ak suuf yàlla boolewu leen ci kooku te dañ xam ban yoon lañ koy jaaral tey mel ni médecin bu yor ay traitement rek noonu la ñuy jëfalanteeg façon taalibe yi leen di war tamit waaw gis nga moo tax mu ne kadalika lahum al ittilaau ma huwa maktubun bila kitaaba min jamici ma fawqa fawqa ma taxta tart li nga xamante ni moom la moom yàlla di leen xamal li nga xam ne dañ koo bind ci bindin boo xam ne du bind bindu xalima ci lépp lu nekk ca kaw a kaw سمان أجلينك بجسوف فسوف وأنك من ولا عجب أنك من حكيم يتلقى علما من حكيم عليم نقول له لك بكيمان كي كان تيكين خمنتيني موي حك حكيم موي نيت يالا بو خامني موي جيلي خم خم تي كو خمنتيني موي حكيم عليم موي كي خيرين تري بروم خم خم بي خامني موم موي خم ليب موي يالا لولو كيمان نيت يالا بو جيلي خم خم تي يالا لولو دو كيمان موتا موني فامين مواهب السر سر اللدني ظهر بعضها في في قصة موسى والخضر عليهما السلام يعني بكونا تلين يعني ماي ماي ماي سكري يخمني تي والو جيجي يلا ينكو لينكو امي يعني لو الفين باتاي وني قصة يخمنتني ماي ديجان دي سيدنا موسى اك سيدنا خضر لو ليرنا جانا ننكو تيري باتاي اك وقوله من بني تي بات بمنا قوله بعين البصيرة بنا نتي يلا بيتي عين البصيرة اللي يجي سينك nee na wax jooju lim ca nama mooy hiya quwatun lil qalbi almunawara bi nuuri alqudsi yubsiru biha xaqaiqu al ashya kama yubsiru al insaanu kama yubsiru al insaanu bil ayni al basira nee na mooy mooy puissance boo xam ne ci wàllu xol la buy dellu ci wàllu leer maanaam puissance leer boo xam ne ci xolam lay nekk jóge ci ci leeru quds quds nag mooy mooy mooy mooy mooy yàlla ba ci ci leer yooyu puissance leer yooy ca lay gisee moom mooy mooy aynul basirati boobu ca lay gisee lépp loo xam ne mooy réalité mbir yi ca la koy xamee machine buy daw façon euh, bruit bruit bi muy def koy xam bool bu waddee bruit ba muy def dana xam hakada bu defee noonu lay noonu lañ koy gisee moo tax boo demee wax ibn al arabi al xaatimi radiallahu anhu cheikh al akbar mu ala suufiyi an nutq عن الغيب مع إيمانك بالمثال المحسوس وهو أن المرآة إذا صلقت وجلى عنها الصداء تجلت صورة الناظر فيها فإن من عهد إلى مرآة قلبه فجلاؤها فجلاها من صداء الأغيار وأماط عنها كل حجاب يحجبها عن تجلي صورة المعقولات والمغيبات بأنواع الرياضة ibnu arabi alxaatimi mu ne bul weddi suufi ku bokk suufiyanke bu waxee lu jëm ci wàllu xam-xamu kumpa mooy xam-xam bu fàdd ci wàllu asamaan wala ci suufu suuf wala ci biir géej wala ci jaww ji nee na bu ko weddi lu tax nee na bu ko weddi ànd ak yow gëm gi nga gëm ne maanaam lépp looy looy gëm dafay doon loo xamante ni maanaam lu lu existe la loo mën a teg loxo maanaam lu concret la ngay doog a mën a gëm donte na foofu nga yegg yow sa niveau bu tee bu ko weddi bàyyi koog waxam rek moo tax toujours bu ñu waxee ne sufiyanke wala ci diw nee na nangam wax ko euh, boo ca mënee maandu rek maandu ci te bañ ko dingat ndax mustawa yi tollul xamuñu ci wan ci wan ci wan façon lay waxe xamuñu ci wan xaala lay waxee bu ko defee loolu yàlla mën nañoo dimbali ñu mucc buñ ko buggee interpréter rek dinañu dugg ci kàmb goo xamante ni du am buum bu ñu mën a yor pour ñu génn parce que boobaa dañuy génn dugg ci xam-xamu yàlla xamuñu waxam jooju moom ban jubluwaay la ci am surtout nag bu dee koo xam ne njortu nañ ni ci moom ak ak wilaay rawatina nag ñu mat lu mat a bàyyi xel la maanu ca rek ne allahu aalam la ca la ca des nga bàyyi ko ci loxo yàlla bu dee la muy wax dëgg la nga mucc bu dee muy wax du dëgg kooku digganteem ak yàlla la sa yoon newu ci waaye bu ko defee rek nga am jàmm incha allah nee na loolu nag nee na loolu da doxee noonu bul weddi suufi bi bu waxee yow boo gëmul rek mandul mais dafa mel ni rek seetu bu taanu daanu daal di toj bi mu tojee nee na ki taxaw ci kanamam mën naa gis ngandam jëmm boo xam ne mooy nekk ci seet bi ca ginnaawam day gis ay yeneen jëmm yu baree baree bari yu bokkul nee na noonu noonu la mel ci ki nga xamante ni suuf suufiyanke la wax ci wàllu xaybu ni muy gisee mbir mi muy mu lu leer ci moom yow mi nekk ci gannaawam da ngay gisee ay ay melokaan yu bokkul noonu ngay mel ci moom it bu defee boo deful attention rek mën ngaa dugg ci loo xamante ni laa ilma laka fii ci yàlla musal ah, loolu mooy suñu darsu tey noonu la ta nga xamante ni mooy yoonu tasawuf doxe yàlla dëxañ ci ay leer dëxan ci ay junj waaw dëxan ci ay façon doxalin yoo xamante ni du nit ñëpp ñoo ko mën a comprendre loolu nag foog ñu koy jàng di ko leeral ñi nga xam ñu nekk ci biir yoon bi waaye li mu mën ci doon yëpp day tënku nag ci la ñu jàngoon ci tàmbalik téere ba mooy day génn du génn sharia ak sunna day tënku ci sharia ak sunna képp koo xamante ni la wala mu tënku ci yoonu tasawuf ne yonent bi digal na ma léegi ni feeñu na ma nee ma boo sawatee bul wisu xamal ni kooku la la de wala yonent bi nee na naay naan sàngara xamal la àndal yonent bi nee na naa bàyyi julli xamal ni seytaane la àndal parce que loolu dëpp wala sharia ak sunna loolu yonent bi ba di maye noonu la mel lépp loo xam ne yonent bi moomu ko ba di ko maye bu ko nit waxee jëmale ko ci yonent bi wala mu wax ko naan léegi sax jëbal yonent bi jëm ci jibril wala malaaka loolu moom du dëgg ndax lépp loo xam mooy yoon wi li ci ne dafay dëppoo ak sharia ak sunna bu ko wàccee rek ñu xam ni loolu moom bokkul ak yoon wi daal nañ yàlla boole dimbali te xëy xiir ñu ci ñu bëgg nit yàlla yi incha allah te mu boole ñu ci incha allah yal nañ ko yàlla defal aqul qawli hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu